yow nan nga gisee le bilan matériel de de de, de Macky Sall il a bien travaillé très bien à bien passable peut mieux faire. góorgóorlu na jéem na de mais man su ma doon moom et et c'est dommage le président Macky Sall comme le président Wade je pense que la quête du bilan l'immédiateté du bilan ak bëgg am bilan moo tax ils n'ont pas pris à bras le corps les problèmes fondamentaux du Sénégal noo mën a dunde Sénégal aujourd'hui réew mu bakkane buy am yaakaar amoo réseau de chemin de fer cest à diir ni nga war taqalee réew mi pour que nga mën dem fu ne mais surtout que nga mën développer production lu ne nga mën ko valoriser ba la xew Kédougou richesse ya richesse yi am Casamance

ba lañ fay bay lañ fay ex ba léegi mënoo exploiter sa fer mënoo exploiter sa sa sa sa sa richesse yi ca Kédougou parce que mënoo am moyen boo ko génnee mbay mi ci Casamance richesse yi ci Casamance mënoo leen transporter donc defar chemin de fer boo xam ni dana jokkale zone de production yi ci réew mi yëpp c'est une exigence et une urgence ñaareel bi mbirum ndox mbirum ndox comment peut-on être un pays sahélien qui jette de l'eau dans la mer ou qui permet que l'eau aille en mer da nga waroon mën par n canaux comme gérer les eaux usées comme revitaliser les vallées fossiles comme euh, xool ndox mi jóge ci. def ci dem ci mais diagnostic de ce que Macky Sall a déjà fait. Euh, ci adduction d'eau yi. ci électrification bi est-ce que jot nga def la la la la la parce que là revitalisation des vallées fossiles des vallées fossiles hors du temps à la RTS il y a deux choses vallée de l'Anambé revitalisation vallée sous fossile ak île à morphine. non non xam ba léegi yooyu yëpp ñetti ñetti saafara nañ ci lu bari de. île à morphine non non vallée fossile da dañ ko arrêté. ah non je veux dire ma ne. non vallée dañ ko arrêté. non tant parti mais gis li ma en fait li ma la bëgg wax du vallée fossile dama la jox un exemple comme un autre. c'est-à-dire revitalisation la rek les zone d'eau mais lim beneen bi mu la bëgg a xam xam nga soo jëloon aujourd'hui le vrai problème de nos zones urbaines et de nos zones d'habitation c'est les problèmes d'assainissement en plus des questions d'urbanisme de voirie et xam nga ni léegi assainissement bi. soo jëloon des zones comme tout tout le triangle démographique nga def fa un réseau dense de traitement d'eau usée du xam nga ni il est prouvé il est scientifiquement prouvé que soo traité à de niveau deux ndox mi da koy bàyyee nga jël zone Diourbel Touba jël toute la zone euh, du Gandiolé xoolal fii technopole ni mu mel nga ndox mi ngay tuur ci géej gi ndox usé yi yàq sa géej yàq sa jën nga def ay réseau un réseau de traitement des eaux am na fii Mamel bu ñu fi nekk di tabax voilà mais bokkul dama lax ni nañ ko densifier parce que soo ko densifier parce que problème bi gën a am solo réew yi quand les gens parlent de souveraineté souveraineté bi jëkk c'est vrai dundal euh, faj say njaboot la yar say citoyen la defar état bu baax mais dundal sa njaboot ci souveraineté la. donc dañoo laje ci accès universel yi. enfin en tout cas eggaguñ ci de eggaguñ ci. parce que ah. tous les projets le président Wade c'est vrai avait beaucoup d'idées sottiwul le président Macky Sall a fait le Prodac le Prodac était une belle idée. c'était une belle idée c'est dommage que. Euh, li ci xew-xew ci mais dama bëgg wax ni c'était de belles idées parce qu'aujourd'hui il faut que réew mu nekk mën dundal sa njaboot gis nga Asie. ci juróomi at la ñuy fixé ay objectif di dundal c'est-à-dire toutes ces bonnes pratiques là nga xam ni yeneen réew ñoo ngi koy réussir war nañ ko réussir gis nga yàlla wër wërsëgale nañu am nañu pétrole am nañu gaz mais pétrole ak gaz du développer réew pétrole ak gaz moyen la pour que réew mi mën développer wu ji nga aujourd'hui régler problème mu xale yi jàng jàngale jàng métier faj leen gis nga régler problème mu mbay mi par ndox mi parce que ñetti problème ñooy problème mu Sénégal nit ñi suuf si ndox mi bis boo régler ñetti triptyque bi régler nga problème mu Sénégal et loolu mooy li am solo et ñun c'est qu'on parle en connaissance de cause bokkoon nañ ci gouvernement. xam ngeen li manqué. xam nañ li ñu li ñu matul jis nañu li président Wade def ak li président Macky Sall def. mais les fondamentaux ba léegi attaqué guñu